li gën a récent mooy mhm. euh, diggante leen dëkk léegi liñ ci gën gis mooy affaire bi nga xam ne mooy affaire Boy Djiné mhm. ñu koy comparé ak série boobu nga xam ne ñëpp xam nañ ko série mhm. d'évasion boobu donc moom li ñu gën a xam mooy euh, enquête bi mi ngi avancé à grands pas bañ nañ ko ba ñi nga xam ne éléments yi ko doon garde jour boobu noonu guddi googu muy euh, rëcc éléments yooyu instant bi dañ leen a mettre en garde donc dañ leen a jàppale pour le temps que enquête bi ñu koy def di constituer fait yi xool lan lan la def ba échappé wu que dafa commencé di eh, crédibilité li nga xam ne mooy justice sénégalaise mm-hmm. waaye itam système pénitentiaire administration bi mm-hmm. euh, dañ ko commencé euh, discrédibilité mm-hmm. maanaam dañu commencé indi ay failles parce que moom dafa newoon dès le début que fépp foo ko dugal fii ci prison Sénégal mën na fa évadé wu muy delluwaat euh, ci lendemain bi mu def interview ci benn télé de la place di wax ni que bu defee ni c'est parce que dafa forcer liberté provisoire am nee na longue détention bi ko def moom lay xeex te amul beneen arme bu dul bii la ko xeexee mu ne nag bu ñu tuumaal ba kenn koo xam ne ci administration pénitentiaire moom moo ko wax ci ay mhm. waxam mu ne kenn jàppalewu ko moom moo bëri ay astuce nee ba mu amee 12 ans ba tey il est débrouillard mhm. donc moom foo ko munti dugal ci Sénégal ci prison moom mën na am ay pexe mu génn ci mhm. ba tey ci interview bi mu doon wax ni que moom nit ku jullite la mais seulement dafa am yoo xam dañ ko war a xeex ci dëkk bi mhm. nee na système pénitentiaire yi ni leen jàppee du noonu i tamit longue détention boobu noonu daf cee yaa parce que bu ñu fàttalikoo moom li ñu ko jàppee woon mooy que euh, vol bi nga xam ne amoon na solida waaye également ci beneen évasion boo xam jotoon na ko def ci lañ ko waroon a jugé malheureusement juge bi mooy Samba Sall ki yoroon dossier bi moom euh, moo génn àddina joxoon ko euh, chambre criminelle de Dakar ñu ah. renvoyé woon ko foofu ah. donc depuis 2020 il était en attente mi ngi doon xaar mais prononcé wuñu woon ci sooram mhm. moo tax nee na moom dafa forcer liberté provisoire bi mhm. loolu moo waral euh, mu génn ci prison camp pénal boobu nga xam ne haute sécurité la woon mhm. ñëpp di laaj ba tey nan la def ba génn mais li ñu gën a marqué daal mooy lendemain évasion ba moom tenir na interview interview waaw. <laughs> c'est c'est bizarre ah c'est bizarre loolu lañ doon wax fii démb ah. donc je pense que euh, un évadé qui accorde une interview loolu mën nañ ci xalaatee noonu en plus moom booy jinne euh, même buñ ci toftalee jinne ci turam tam nit kese la mën a doon. jinne nit nit la. Mm-hmm. du jinne du rab. ci li ma ci li ma foog. Mhm. Euh, donc bu fekkente ni dañ ko teg euh, haute surveillance mu daal di rëcc rëcc ci anam bi nga xamante ni rëccee na ko. Mhm. Euh, yoon la tey administration bi nekkee foofu ñu xoolaat ñoom seen liggéey naka la tëddee woon. Mhm. mais bu toogee wax ni kenn jàppale ko je pense que loolu dafay suñu xel mi. la bëgg a lëmbee mais nekkul lu nga xamante ni jaar na kii na yenu na maanaa en plus bu foo bu toogee nekk moom dafa jox boppam liberté provisoire tourné ne moom il fait confiance à la justice sénégalaise c'est deux propos yu nga xamante ni dafa contradictoire moom day wax di weddi boppam et je que mbir mi am na yu bëri yu nga xamante ni làqatu na ci ko mais tamit li gën a doy mooy yow nga rëcc ba pare di imposer say loi mhm. parce que nee na moom nekk demul gëf demul fenn mhm. Sénégal gii la nekk mu ne maa ngi nii di jàkkaarloo ngeen ngeen may gis mhm. mais bu jour tribunal bu fekkee ni accordé ngeen ma sama audience ba wax ma ko jour boobu xam leen dinaa pointé wu ak samay avocat mais loolu fan la am na <laughs> nga évadé wu. ah teg say condition nee waaw loolu la wax nee na rëccul mhm. mu ngi toog fii bis bu ñu ko euh, jàppalee procès rek il euh, euh, bu ñu ko jàppalee bu ñu. bu ko waxee jour procès moom rek mu ñëw. dina ñëw indaale ay avocat nee na liberté provisoire bi ñu ko waroon accordé moom moom la accordé boppam vu que moom la jëlal boppam vu que instant boobu joxuñu ko woon. dañ ko waroon jox liberté provisoire mais malheureusement mujjee wuñ cee def. kii li waroon man boobu damay wax sama xalaat peut-être keneen xalaatam mais man dama ne du mës a ñëw taxaw bés bu ñu ko newoon procès bi suba la du mës a ñëw taxaw mhm. moom kay na wax li muy wax rek dem na dem na jeex na léegi nag est-ce que bëggul léegi nag euh, problème bi toujours des ci kii bi pour man su ma jàppee nii xëy na euh, bu toogoon sa jugé que peut-être mën nañ ko ba relaxé mën nañ ko bàyyi mhm. et euh, maanaam évasion yi muy def nii dakoy koy gën a dugal c'est-à-dire day gën a. day yokk chef d'accusation ban avocat ban avocat. moo koy assuré ne que boo demee. est-ce que yow kii. moo ma boo demee xoolal xamal la. mais am na xoolal xoolal bu ñu la nee waaw ok <laughs> on te convoque mardi. gis nga doy na waar balaa muy egg ca buntu tribunal bi lañ koy jël euh, ñu ñu rek ci beneen actualité beneen euh, actualité donc bi gën a marquant euh, Salma mooy dañu gis ni après que décès boobu am ci leeral trois mhm. morts yi fa amoon ñu leen di jaale waale en passant donc après boobu dañu gis ni ki nga xam ne mooy journaliste bi Adama Gaye mhm. moom dafa defoon benn publication sur Facebook donc mhm. publication boo xam ni xam nga Sénégal léegi information bi dafa gaaw ne serait-ce que benn après quelques minutes après mu effacé ko mais na ñu ko jotoon a di ko partagé waat mu def benn polémique boo xam ni mhm. xamewuñu ko ci woon mu jël benn envergure boo xam ni xamewuñu ko ci woon mhm. parce que yenn propos yu mu ci tenir noonu euh, nekkul en concordance ak la personne mhm. ñu ci bëri déplorer ko parce que si moment yu mel nii même bu fekkee ni yow da nga nekkoon en conflit ak nit ki moment yu mel nii da ngay attristé da ngay compatir ak moom mais moom loolu euh, moo yooyu mu def noonu c'est un peu déplacé ba tax na ki nga xam ni mooy Cheikh Yérim ñoom ñaar am na fu ñu jaaroon ci Jeune Afrique mi ngi koy wax ni ci postam moom it mu koy wax euh, commencement bi dafa commencé par grand frère courant bi mu am ci moom mhm. mu ko naan euh, sa poste boobu noonu daf maa terriblement choqué parce que ba ma ko liiree mhm. j'ai sursauté nee na dafa jàpp ni sax moom du Adama Gaye moo wax loolu loolu la wax euh, mhm. te nee ko euh, soldats ñi daanu foofu ñiy décédé ay soldats de l'information lañu woon ils n'ont rien à voir ak haine bi nga jàppal état du Sénégal mu koy fàttaliwaat di ko wax ni que dem nga ba naan li lii ni complot la woon complot bi journaliste yooyu dañ cee bokkoon mu ne ko di ko fàttaliwaat que ñooñu dañ doon def seeni i liggéey rek mhm. ba ndogal bi fekk leen ci mais euh, ak li mu wax tamit mu ne euh, la série continue la série noire continue mhm. c'est comme si prédiction la doon def mu ne ko prédiction boobu waroo ko def parce que fii Sénégal ñun ñëpp a ko bokk mhm. même bu fekkee ni haine bi wax na ko ba naan ko ba ngay génn sax haine ak rage bi nga àndal ni instant bi day ragal sax yow mu indi la problème yow ci sa bopp parce que il ne se journaliste bu ngand bu mel ne Adama Gaye bu demee mhm. bay wax yenn poste yi mu lenn ni nit ñi dañ ci jot mhm. donc c'est parce que y a quelque chose ñuy wax ni est-ce que ba mu ñu ci bëri di commenter naan est-ce que ba mu génnee prison amul ay séquelles mhm. ama euh, stress post-traumatique des dafay am ñu ci bëri di laaj est-ce que du problème yooyu moo ko jàpp wala mais en tout cas y a quelque chose qui cloche et que Yérim a tenu à rappeler ko statut bi mu am fii ci Sénégal mais en même temps devoir bi nga xam ne moom la journaliste wax na ko mooy mu retiré waat affaire bi. Mhm. déjà loolu man bi ma gisee mu retiré ko. Mhm. déjà man nee naa au moins. non il s'est euh, même excusé. voilà voilà tu as vu donc voilà euh, nit ñi ñoo doon ñëw vers lui. waaw non non non pour ko waxee dem pour lui dire que dafa fauté. non c'est que parce gaañu moom. la ca jour ba non ca jour ba moom. Mhm. boo gisee. non c'est que c'est que bu ko retiré wu loon du baax. du baax mm-hmm. non non. au nom de Dieu c'est mm-hmm. euh, conseil yu euh, euh, sa pire ennemi je pense que sax waroo ko yéene. non non mais non mais. d'autant plus que c'est des jeunes yoo xam ne. Eh, mais des jeunes pères de famille liggéeykat macha allah dem. sur le terrain mais yow loolu dañ lay xolal. dañ non mais attends nit da nga am xol. Hmm. nit da ngay am xol. doy na waar sax ay collègues am lañ moom journaliste la. ñun mhm. ay collègues am lañ donc vraiment à déplorer te mhm. yenn comportement yi waroon na mën a dañ Sénégal. Mhm. surtout ñi nga xam ne ay emblème lañ fi. waaw waruñoo mën a def yenn yi. ñu jàll ci beneen point bi rek mooy ki nga xam ne mooy Djibril euh, War di député. donc député bi moom dañ ko accusé de violence sexiste. benn euh, député sud africaine moo ko ko accusé. moom tamit mu nekk benn polémique boo xam ne ñu ngi lëmbee sur euh, kii yi. donc voilà assemblée générale africain bi la amoon foofu ci mhm. Johannesburg donc dañu gis ni benn bagarre moom mujjee woon éclaté ci parlement boobu au sujet de nouveau président parlement bi mhm. parmi les députés lañ ko waroon a tànn donc mu indi woon benn euh, complication boo xam am amoon na entre Djibril War ak benn député zimbabwéen mhm. ñu demoon ba en venir aux mains commencé xeex donc euh, affaire bi dégénéré euh, député sud africaine bi ñëw dugg ci ne moom dafay àtte fa muy àtte foofu la ko Djibril War dóoree Djibril na moom tayu ko parce que c'était sur le coup de l'action mhm. donc moom euh, doon na ko mais tay ko mhm. terewul journaliste euh, kii bi député bi ba mu génnee dafa dem jàkkaarloog journaliste yi en mhm. plein caméra mu ne dafay porter plainte contre euh, maître maître Djibril War parce que nee na daf ko agressé moom agression la ko tuddee te Djibril War moom mu delluwaat di wax ni que am na immunité parlementaire bu ko mën a sauver mais day tax di fàttaliku rek condition yi nga xam ne africain yi am nañ ko foofu surtout sénégalais foofu ci Afrique Sud mi ngi wax ba tudd ay xénophobie et cetera mais mi ngi koy def loolu yëpp ci compte euh, compte Euh, conflit yooyu noonu nga xam ne mhm. am na ci digg Afrique du Sud bi mhm. mais ba tey plante bi euh, ñu ngi ko wëyal donc ci mhm. xaar rek euh, fi muy mujjee nit daal doo doo yaroog sa sago ñoo ngi jéggalu nag ci kàddu gi mais noo mënu mënti demee rek situation bu ñëwee ñëwee da ngay xool bu baax comment tu vas réagir d'autant plus que yow député nga dafa am loo nga xamante ne tey ji moom ngay représenter pour sa réew je pense que war nga joxe la bon exemple lan mooy tayu ko yow yaa ngi xataraayu ci ñëpp gis nañ bi yaa xataraayu ba jël sa na ne rek moo ngi jéggalu mais mais ay tayu yooyu léegi nag euh, ki nga xam ne moom lañ dóor bu fekkee moom xolam may na ko mu jéggal ko na ko jéggal sinon aussi ñu xool rek yoon mm. nan la nar a mujjee te image li ci gën a choquant mooy bu fekkoon ni ñun suñu Sénégal lañ ko yemale ah, sax mais dem ba parlement ba da ngay yàq sax sa image commencé fa indi ay yu mel ne xeex mm-hmm. mu leen ne bu ñuy bind attitré dañuy bind sénégalais un mm-hmm. sénégalais la tegal la ci député mm-hmm. donc euh, mu nekk image yoo xam dafa doy waar mais jib euh, député bi moom it porté na ko plainte accusé na ko de violence sexiste donc euh, loolu moo nekkoon point boobu. Mhm. xanaa mooy violence sexiste. violence sexiste sexiste waaw. loolu la ko accuser violence kese la tout dëgg dëgg violence sexiste loolu loolu la. Ah, violence sexiste la ko ah, tuddee. doy na waa daal ay waxu tubaab yi doy violence sexiste mooy. <laughs> voilà loolu. ay yéen lii. kese la. ah Khadija euh, euh, da beneen information. dañ koy jeexalee ak musique rek euh, donc ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg musique actualité yi am ci musique muy Ngaaka Blindé la dernière fois benn show bu mu doon def ci TV ci te benn télé de la place. Mhm. mi ngi doon wax ni mën ngeen attendre éventuellement ak benn featuring ak mhm. Dip. Mhm. mën na def Dip ak Dip featuring mais muy delluwaat di wax ni Dip du xaritam. Eh, dip du xaritam concurrent am la te ci musique bi bu dalee dëgg dina xam ni du moroomam. donc nee na dina ko dóor dóor yu métti. ci mission xeetu concurrence bëgg naa ko. waaw waaw bëgg naa wax na ko diplomatiquement. ku nekk yaa ngi wan nan nga mënee. c'est ça di bu kii génnewee nga génnee fële. contrer mhm. ko jusque yenn mots yu ñaaw yi nañ ko ci dindee rek mais concurrence ak gii nii moom je pense que si si euh, seen euh, domaine. waaw ci la fekk baax. li moom c'est à approuver parce que ni mu ko waxee sax ko ni mu ko waxee fi manière bi dafa neex. parce que mhm. mi ngi naan euh, côté business musique business la. du mhm. bi dañ koy gérer. mais en dehors de musique bi maak moom amuñu benn feeling. <laughs> wax feeling bi jàllul maak moom te nee na bu nekkee son bi dëgg dib dina xam ni moom du moroomam ndax ah, daf koy raw ci son yaa ngi comprendre <laughs> donc ñu ci bëri ñu ngi xaar featuring boobu mhm. dañ koy def euh, si scène ku ci nekk nekk si sa yitte mhm. mais ñu ci bëri ñu ngi xaar éventuel son boobu mhm. dem na ba naan dib tamit guerrier la mais concurrent am la donc ci business da ngay xam sa concurrent waaw léegi ñu ngi xaar featuring boobu loolu moom Sénégal a koy xaar sax yaakaar naa dina dina am solo bu baax a baax euh, Khadija kontaan nañ bu baax ci information maa la gën a kontaan Salma di ko jeexalee ak Wally mi nga xam moom lañ distingué meilleur artiste de mhm. l'année ki ko distingué mooy calebasse de l'excellence ci son boobu ji Xippil eh, Xool donc mhm. clip bi moom la ñu décerné meilleur artiste de l'année mhm. mu tombé ak retouram sur scène donc ñu koy féliciter de passage di ko ñaanal tamit carrière mu am ci calebasse de l'excellence ñëwoon nañ fi sax ah. eh, invité woon nañ leen fi petit déj macha allah seen liggéey am na solo bu baax di ciy féliciter Wally dafa dafa aussi xol mhm, mhm. allah ñu lay jaajëfal. papa soo ak ses amis. Salma di remercier ñi ma bokkal plateau bi ak ñi toogoon di ñu seetaan. di joxaat dig daje semaine prochaine incha allah.